وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا ci turu général Moussa Fall sëriñ bi sëriñ Mbacke Diop dafa wax ne mi ngi wax ci kàddu général Moussa Fall. nee na général bi nee bi mu nuyoo sëriñ bi ba noppi. nee na général bi dafa wax ne gannaaw bi mu nuyoo sëriñ bi ba noppi. ci kaddu yam gën a rafete ci kaddu yam gën a rafete mi ngi mi ngi sant bu baax. ci teew gi nee na mi sant bu baax. ci teew gi mu teew fii ci kanam. ci teew gi mu teew fii ci sa kanam. kaddu yi nag ñaari ñaari kaddu rek moom la. mu ne kaddu yi ñaari kaddu dong la. daa ñëw ngir saytu liggéey bi. mu ne dafa ñëw fii ci Touba ngir saytu liggéey bi. dem na ci gendarmerie yi ci dëkk bi yëpp. mu ne dem na wër ci gendarmerie yi nga xam ne ñoo féete fii ci gox bi ci Touba. dem ci escadron bu mag bi nga xam ne moo nekk mu ne bu mag bi nga xam ne moo nekk fii ci dëkk bi. xool nu ñuy doxalee ci liggéey bi. ci màggal gi ñuy ni ñuy doxalee ñoom ci bi ci màggal gi. waaye bi mu ko xoolee xelam dal na. mu ne waaye bi mu ko gëstoo xool ko xelam dal na ci lool moom général Moussa Fall. ndax général nee na moom lépp lu ñuy def ci dëkk bi moom lañ ko defal général dafa wax ne lépp lu ñuy def ci dëkk bi moom mii lañ koy defal ndax sëriñ Muntaxa mi day waajuram ndax sëriñ bii toog di sëriñ Muntaxa day waajuram di sëriñam di sëriñam di léppam di léppam mu ànd ak Mamadou Fall mi nga xam ne mu ànd ak Mouhamadou Fall mi nga xam ne doom la ci sëriñ bi doom la ci sëriñ bi bokk ak Moussa lépp bokk ak Moussa lépp waaw euh, ginnaaw loolu nag mu ne gannaaw loolu nag bi mu noppee nag mu ñëw ci sëñ bi mu ne bu mu noppee mu ñëw ci sëriñ bi di sàkku ay ñaan mu ñëw di sàkku ñaan ci yow di siyaare si màggal gi di siyaare si ci maggal gi joxe haddiyam joxe haddiyam indi na fi lu toll dix mille masques mu ne indi na fi lu toll ak dix mille masques ak ay ndox lu toll trois mille trois trois mille butéel ñetti ñetti junni butéel ndox yoo na ci ñetti junni na ci ñetti junni waaw dafa am na kilifa yu mu àndal mu ne dafa am kilifa yu àndal nee na mu may ñu tuuti rek ñu lim leen loolu tuuti général ñu may ñu tuuti ñu lim kilifa yi nga xam ne la général Moussa Fall àndal waaw ñu jiital ci mu ne ñu jiital ci général Martin Faye mu ne général Martin Faye ñoo ànd ñoo ànd ci liggéey bi ñoo ànd ci liggéey bi ak colonel Amadou Codou Fall mu ne ak colonel Amadou Codou Fall ak colonel colonel Cissé ak colonel Cissé colonel Souleymane Cissé colonel Souleymane Cissé ak colonel Sy ak colonel Sy. médecin gendarmerie. médecin gendarmerie. ak colonel Cheikh Sarr mi nga xam ne. ak colonel Cheikh Sarr mi nga xam ne. moo yore Thiès ak Diourbel. moo yore woon Thiès ak Diourbel. waa kër gi ràññee nañ ko lool. mu ne waa kër gi ràññee nañ ko lool te xamee ko. waaw ndax yittey murid yi ku ci farlu la. ndax yittey murid bi ak taxawaay moom ku ci farlu la moom colonel Cheikh Sarr. waaw colonel Sy. colonel Sy. ak colonel si. ak colonel si. ak colonel Issa Diak. ak colonel Issa Li. ñooñu daal la général Moussa waxoon ne. mu ne ñooñu la général Moussa Fall waxoon ne. ñoom la àndal ci liggéey bi la àndal ci liggéey bi. sëriñ ma kàddu yi mënta gudd. mu ne kàddu yi nag mënta gudd. ndax moom ak cant rek la. mu ne ndax moom ak cant rek la. ndax Moussa ku ne xam na ne fii la dëkk. mu ne Moussa kenn ku ne xam na ne fii dëkk. ndax Amadou ma Fall Amadou Fall ma njéeme mu ne Amadou Fall ma njéeme maamam. ku ne xam ne ku ñu ko tuddee mu ne Moussa ko tuddee mook bàyyam bokk ndey baay mook bàyyam ñoo bokk ndey baay bibliothèque bi moo nekkoon archive bi ko doon liggéey jamono Sëñ Abdou Lahad mu bi moo nekkoon archive bi ko doon liggéey ci kon xam na ne fii moom fi la dëkk ab taalibe rek la fi mën a doon ab taalibe dong la fi a doon kon mu ne fa tabaarakallaa nee na mi ngi ciy sant bu baax a baax mu ne dégg na kàddi bu baax a baax mu ne général Moussa Fall mii xam nañ ko baax xam nañ yitteem bu baax a baax mu ne xam nañ it taxawaayam mu ne mi ngi ciy sant bu baax a baax mu ne ndax xam ne fii nga taxaw bu fi taxawee mu ne sëriñ Touba nga fi taxawal mu ne loolu nag doy na sëkk mu ne doy na sëkk sëkk ci warteef ci sa sa warteef mu ne liggéey biñ ñu la jox mu ne ginnaaw Serigne Touba dëggu na ci yow mu ne lépp dana yomb incha allah mu ne lépp dana barkeel mu ne nga sant yàlla te gën a góorgóorlu baax a baax. mu ne ginnaaw xamees nañ Sëriñ Tuubaa dëggu na ci yow rek mu ne na sa xel dal bu baax a baax mun ne kon xelam dal na mu ne yaakaar it rëy na lool mu ne kon nag mu ngoog rek mu ngi lay ñaanal baax a baax mu ne liggéey bi rëy na lool mu ne waaye mi ngi ñaan suñu borom gën la gàttandoog tawféex Sëriñ Tuubaa mu ne bu la gàttandoo tawfeex sëriñ Tuubaa rek lépp dana yëwén lépp dana yomb lépp dana barkeel mu ne lépp nag day soppiku di ndam rek nag mu ne ndamal sëriñ Tuubaa di ndamal réew mi mu ne loolu rek la mu ne kon na nga gën a góorgóorlu baax a baax mu ne am nañ ci xel mu dal bu baax a baax mu ne suñ xolam it sedd na ci cër bi nga xam ne moom la la président jox mu ne cër boo xam ne ki nga ko jox xam ne ne nit ku sëriñ Tuubaa la mu ne loolu xolam dana ci sedd guy mu ne kon nag mi ngi mi ngi rek mu ne na ngeen góorgóorlu baax a baax mu ne jërë ngeen jëf kon na ñëpp tàll seen loxo bisimilah. بلا انقطاع بفضل منك بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي kulli sayr wa fi safar xamaani ala maahin maal absar safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada moonin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man luwu ubtu bi safar